c'est la première fois daal ñu am premier ministre bu matul seet. <coughs> daal si 94 milliards yi ñoo seetaanandoo vidéo Ah, waaw xam nga Zeyna bi ngay wax da nga ne affaire 94 milliards toute la vérité mooy dëgg bi la lumière na lampay tàkk. ni ko moo géej doon waxee waaye moom bu mu neen lamp yi tàkk ba tey moom dafa fay <laughs> lamp yi moom mi ngi tàkk je crois que lamp yi tàkk na xam nga ñëpp dañ jógoon tuumaal Mamour Diallo mm-hmm. ba indi ko ci affaire u Adji Sarr bi je crois que li nga dégg fii ñetti société nga dégg Mercales AB Partenaire Atlas Sofico ñeent Sofico mooy Tahirou Sarr AB partenaire Mercales Atlas yëpp muy Ousmane Sonko def ko ci ay turu jaamur Ismaïla Ba Abdourahmane Doura Balde waxoon naa leen Doura Balde maa ngi ko xamee kër Pierre Goudiaby Atepa moo yoroon abe partenaire di comptable Ousmane Sonko kon donc damay fay li muy kaas képp ku am dénoncé ko si ñoom la tàmbale ah, waaw taxaw di naan jub jël ay société def ci ay turu nit tey mën naa ubbi cinquante société def ci Zeyna def ci alors que maa ci nekk donc lanceur d'alerte donc euh, président Bassirou Diomaye Faye son excellence affaire 94 milliards yi comme Ousmane Sonko ni mu ko waxee woon ku porter plainte dafa yor preuve preuve du ci mbedd lañ koy tasaaree du ci ay journalistes lañ koy tasaaree je crois que 94 milliards yi leer na nañ ñett lañ ci dégg muy société yoo xamante ni ñoom ñoo ko def te toujours ñoom ñooy woote pour négociation à l'amiable Sophie Cody tayru Sarr di ko bañ kan moo fa kon muy AB partenaire di Abdoulaye Abdourahmane Doura balde actuel DG de la LONASE xaw ma nag lu mu jot ak ci diggante Ousmane Sonko ba mu génn dem Amadou Ba def ko directeur de la LONASE donc je crois que ñi doon wax démb mooy seen kat ak soo waxee balaa ñuy gëstu ji ñu taxaw weddi da ngay fen kat bi duulkat commentaire lañ kat duulkat kat léegi kan mooy duulkat Mame Mbaye Niang feeñ na 94 Mamour feeñ na est-ce que da nga dégg ci vidéo bi ñu tuddal la ci Mamour Diallo. da nga dégg vidéo bi ñu tuddal la ci benn service su état bu république du Sénégal. te amoon na audio tu l'as jamais entendu. amoon na audio amoon na audio audio baa ngi fi de. audio mi ngi fi te réunion ba. voilà d'accord. lañ signé ñoom bi mu waroon jël milliards lañ signé. ba ne woon kenn ci ñun milliards. ba pare daan ne kenn ñu fekk waxtaane siiwal. moo loolu jubut. voilà donc je crois que tey ñoom ñi taxaw di saaga day nit ñi duul duul duul dama ne duul mi ngi fekk baax ñoom fa ñuy jógee fa ñu soqe ko ak fa ñuy défendre moo tax Olof Njaay nee na wax ju ñaaw jëmul fa mu jëm fa mu jógee la cosaanoo kon ñoom ñi di duul fenkat bi fenkat bi duulkat bi nangam sangam seen xol dina jeex suñu xol du ma sa jeex yéen la seen xol di jeex ndaxte ñeen sañu lay woon démb ña nga ca yàlla la ñu yaakaar ak yonent bi dañ doon dund di suturawu di dox suñuy soxla

uniquement ci seen ay wax yu ñu tegoon la moo tax ma ne dama leen di accompagner accompagner mais saa yu ñu tegee ma leen ah yéen waxoon lii de gisuñu lii man leen la lay xaar saa ko ceeb jógee ci vingt deux mille xaw ma nangam wàcc paquetu suukar delluwaat ci trois cent cinquante gaz delluwaat ci mille francs loolu laay xaar am na ñu gaz am nañu pétrole ndaw yi nag Jakarta bëggatu boo gis ko koy def de ak cek-cek. ah livreur ah nee nañu cek-cek leen defal. cek-cek yëpp na arrêté marchand ambulant yi ñu leen waa Colobane bokk nañ ci ñu fal Ousmane Sonko ñu jox leen bu benn booy jëlee si Nicaragua gaal bi bu ko kenn jël fii si campagne bi moom lañ jël ñeneen ñu dëkk bi moo doxul moo tax ñëpp di dem Macky Sall bàyyi na leen ak budget sept mille trois milliards bi Ablaye Wade di dem deux mille milliards la bàyyee Macky 7003 milliards les nouveaux voté budget en 2023 Moustapha Ba wax nos Abdourahmane def passation de service semaine bi di 324 milliards de joggé ci ay bailleurs dugg Sénégal premier puits du pétrole 100 milliards de dugg au mois de juillet dañ ko dello ci askan bi am nañu tali am nañu BRT am nañu terre am nañu ay stade am nañu infrastructure d'abord li on mange à notre fin on boit on conduit nos voitures avec peu de carburant loolu la ñuy xaar ci ñoom emploi des jeunes nag booy jakarta maan yeeg yëpp ku ci nekk na indi CVM wala jàng naa li jàng naa nangam ñi dem jàng ji ku ci jàngul tool yaa ngi fii Kédougou ngi fii Tambacounda ak naa li fa nekk ci hectare ñu jël leen yóbbu leen jënd ay machines yu dem bay ñoom ñoo ne ñu dundee lu ñuy lekk koo fa la ñoom ñëpp ku jàngul amoo eh, ku jàngul amoo formation munoo dugg ci état munoo dugg ci usine dem leen Tambacounda ngeen bay toof fi ba mu bay kaso bi tamit ñi fa nekk ñi leen fay tëj ay at ñi leen jox ñi lekk ñu yóbbu leen foofu su jeexee ñu génn je crois loolu la ñuy xaar ci ñoom. te territoire di jaay. yooyu ci changement bi. ngi wax fii mooy deux voies yi euh, Liberté pour nit ñi la ñi ñu ngi fa teg barrière. ambulants yi commencé nañu monter seen ay table. voilà na leer naan damay dimbale sama yaay. jomaay ñëw na kay. jomaay leen tere woon am xëy na leen jox xëy. ku bëgg da dem ci marché yi il faut que ñu réglementé dëkk bi borom écouteurs yi ñi bàyyi jaar tali bi dafa xat amul doublé scooter yi fu ñu toll ñu ngi jéem a romb nit ñi feu rouge yi tàkk na kenn respecté wu ko policiers yi dañuy taxaw ci diggu tali bi taximaan bi ñëw gis feu bi rouge mu daal di bourle policiers yi duñ ko wax dara il faut que ñu yar sénégalais yi nañu yar waat feu rouge yaa ngi tàkk benn par benn li ma jaaxal barrière yu bees yi ñu def nii BRT bi commencé gul daaneel nañ ko ndax indiscipline notaire des sénégalais. démb dama ñëw fii fekk benn kilifa ya naa ko ma fi soo ko la lay wax dafa réew c'est quoi donc je crois que gis nga Diomaye li muy woote man Diomaye am naa ci moom confiance mais ñu ko war a glacis ndaxte comme dem na bay nuroole ay costume ak ay cravate am na lu ñu koy imposé ful la nag mooy jaay daxaar juddu bu rey ndey ak bàyyi ful ak fayda borom fay biram penda waagaan duggu dugu waagaan borom njaga ñaaw borom jaxaar da sonn sa kër ndey sonn sa kër bàyyi yàlla fayee la lii Diomaye sonn si tool yi hmm, hmm. kii barki Serigne Saliou Mbacké rek laa dama ko faa dama koy xool mais dama ko ñeewantal ci yaram dalam teeyam je te jure j'ai beaucoup d'estime pour Diomaye Faye macha allah yàlla bi ma tiim xam na ko j'ai beaucoup d'estime pour le président Diomaye Faye ndeysaan